waaw déjà dama jàpp ne Sénégal lu tax mu nekk république privée déjà euh, dëkk la bi nga xam ne ñun sénégalais yi moomuñu ko bañ koy tabax laaj ñu sénégalais yi li ñuy woowee Sénégal gii yëpp tey jii muy suñu drapeau muy suñu constitution muy suñuy emblème suñu armoire yi bañ koy tabax ak ñi ko defar duñ sax ay sénégalais. xoolal suñu armoire yi nga xam ne ku ñu tax Suzanne Gauthier benn jigéen tubaab la bi nga xam ne moom sax franc-maçon la woon moom moo defar suñu armoire yi defar gaynde googu ak ak tànku dra drapeau yi n'est-ce euh, yemul ci moom suñu kon suñu suñu hymne national sax benn tubaab bu ñuy wax Herbert Pepper moo ko moo ko joué donc lépp lu ñuy woowee tey Sénégal ay tubaab a ko defar ay tubaab lañ ci woon defar ko ci tubaab yi ñu si gën a bëri ay franc-maçon lañ woon donc dëkk bi nga xam ne dañ ko tabax sans laaj sénégalais dëkk bi di dox di servir ñeen ñu dul sénégalais demal ci géej gi nga xool dama laaj suñu mbokk sénégalais yi nekk si géej gi maanaam contrat jën yëpp dañ ko jël jox ay tubaab demal xool ñu nekk si jiir ji suñu suuf si suuf yëpp ñu ngi koy jël di ko jaay ay tubaab ak ay naar pour ñu di fi bay Sénégal donc ñun sénégalais yi d'ici vingt à vingt cinq ans jàpp naan dañ nekk ay doxandem suñu biir propre dëkk waaw euh, damay wax rek ni euh, ñoom Abdou Diouf ñoom Blaise Diagne ñoom Tanor mii làqu fan yi weesu ñoom Macky Sall bii ñii ñëpp ñoo bokk diine te seen diine du lislaam ñoo bokk diine ñoo bokk sëriñ ñoom ñii ñëpp a tudd nii ñoom xam nañ li may wax donc euh, gëmuñ dara nguur gii lañu gëm nguur te nguur nag ñi ko gëm ñëpp ñu ngi ñu ngi gis ni Sénégal ñu ngi màggal ñëpp ñi gëm nguur donc Sénégal nag euh, ñi ko tabax ay nit lañ ñu tegu woon ci siraatal mustaqim ay nit lañ yu xeex gàddaay seen i njaboot bàyyi seen askan di xeex ngir dëgg texu fi ñooñu ñëpp dañ leen fàtte ba pare bañ leen jàngal suñu ay doom donc nag Sénégal ñi muy màggal ñëpp moo tax ma ne privé la xoolal tal yi xoolal koñ yi lépp luñ tuddee ay tur ay tubaab lañ ay Jules Ferry Jules Ferry am na rue Sénégal Dakar Jules Ferry moo waxoon ni projet mooy dàq yàlla ci yorinu dëkk bi maanaam yàlla warul bokk ci ñu waree yore dëkk bi Jules Ferry boobu jox nañ ko tur si dëkk bi Gambetta nga xam ne xaritam ne woon na diina yëpp ay fen la kooku tuddee ko koñ fii biir Sénégal donc Sénégal ñuy màggal ñëpp leen tuddee ay koñ leen tuddee ay ay ay paras leen defal ay statut ñoom ñëpp gëmuñu woon yàlla gëmuñu yonent bi te faale ñu woon nit ku ñuul ay tubaab la ñu woon yoo xam ne c'était des négriers donc lii mooy waaye ni kon ñun suñu dëkk bi ñun moomuñu ko. kese lépp mensonge la a commencé par le nom du pays turu dëkk bi si moom ab kàcc la donc suñu histoire bu ñuy jàngal ay lii mu ngi jógee fii yëpp ay kàcc la wax dëgg yàlla ñoo nax te dafa jot jamono bi ñu xoolaat suñu histoire gis naa sax ni naam am na commission bu ciy liggéey muy commission ñoom Iba Der Thiam ñu ngi liggéey ci defar euh, histoire véritable Sénégal déjà lii rek gàcce la dëkk bi nga xam ne nee na am na indépendance depuis 1960 ñu xaar ba 59 ans après pour soo commencé xalaat ñoom ci histoire Sénégal dëggantaan bi nañ ko bind lii rek gàcce la waaw euh, dama jàpp ni nit ki mënoo weddi li nga doon mënoo bañ sa bopp pare mën def dara lu am solo il faut ñu nangu ki ñi ñu doon maanaam fii Sénégal amoon na fi balaa tubaab bi di fi ñëw ak naar yi di fi ñëw fii amoon na fi Bawol amoon na Waalo amoon na Kayoor amoon na Jolof amoon na Jandeer dëkk yëpp am na nu ñu tëddee woon am na ñu doon doxee noonu mu doon doxee nag mun ñu ko jël dagg sànni mel dara baaxu ci il faut ñu tabaxaat suñu tey par rapport ak démb bi ñu amoon il faut ñu ba bàyyi xel ni réew mi réewu jullit la te mun ñu ko doxal wala di tabax ko seppi loxo yàlla sànni fële xam nga àdduna bi ñaar yi fi nekk dëkk la yoo xam ne dañoo ne dëkk yi yàlla moo ko moo ko ilif wala dëkk bi nga xam ne ñoo ne nit yi ñoo ko war a ilif senegal dañoo opté nag dañu ne yàlla warul ilif suñu dëkk nit yi ñoo ko war a ilif te nit yi ko ilif yëpp nag euh, moo xam ndax ñoom ñoom William Ponty bi ñu tuddee rue William Ponty góor jigéen la woon franc-maçon la woon homosexuel la woon célibataire la woon pourtant am na fii tali bu ñu ko tuddee tuddee ko fi tali donc ñun ñuy jël modèle ñoom Montesquieu ñoom Rousseau ñi ñëpp nga xam ne ñoom la Sénégal wax ni ñoom la nangul li ñu war a doxal Sénégal dama ne ñii ñëpp kenn gëmu ci yàlla kenn faalus ni ku ñuul et que ñun wax dëgg yàlla amoon nañu yenn modèle ñu war a récupérer ñun ñooñu pour tabax suñu réew indépendance moom ba tey nekk guñ ci indépendance ñi ko xeex kenn si ñoom mu ngi woon fii si biir ku ñuy wax Pa Alla Kane donc euh, bañ doon xeex indépendance mooy jamono bi nga xam ne da fay dem di jël décision te kenn loo ko dicté ba tey jii may wax ak yow président Macky Sall bee nekk ci pale indépendant parce que décision yu bëri amul droit sañ-sañ jël ko sans woote Élysée laaj ndigal ba jamono bii may wax. Non, absolument pas, parce que sur des questions stratégiques qu'on a signées avec des accords secrets euh, avec l'Elysée, le président Macky Sall pas libre. Sur des questions monétaires, il n'est pas libre. Sur des questions diplomatiques, il n'est pas libre. Sur des questions de sécurité intérieure, il n'est pas libre. Sur des questions même de défense, il n'est pas libre. On a des accords secrets avec la France, les Sénégalais, France dafa signé accord xam ne bu ko Sénégalais yi xamoon euh, war donc euh, ah, macha allah ah jërëjëf ah barakallah fikum yàlla na yàlla defal ñu